rahmatullah mbokki na ngeen def ñu ngi leen di bu baax di leen ziar mbaa yéen ci jàmm alhamdulilah waaw di la fàttali yaa sa canal Dramane Mobile li ngeen fi amee seen astuce yu am solo yi euh, tey ñu bëgg a dikk ci benn astuce boo xam ne sii bu am solo la muy euh, bu ñuy tuddee euh, miniature miniature comment mettre une miniature une belle miniature dans sa vidéo YouTube donc tey ci vidéo boobu lañ bëgg ñëw di lañ ñaan nag benn affaire bu ndaw yow mi nga xam ne abonné goo euh, te bëgg ngaa bokk ci chaîne bi wala bëgg ngaa capter chaîne bi ba bépp vidéo bu ñu defaat ci kanam nga jot ci da euh, déglu li la waa ji di wax waa ji waa ji li mu lay wax déglu ko bu baax a baax maa ngi ko tuddee euh, fàllu bi galas bi laa ko tuddee waa ji <laughs> déglu ko bu baax a baax li mu la wax lépp nga topp ndigalam incha allah après ci kanam tuuti ñu ngi. bienvenue dans votre chaîne Derman Mobile chaîne bi nag chaîne bu am solo la di tasaare astuce yu am solo. su fekkee abonné gu nga bëgg cee bokk yomb na da bës bouton bu rouge bi di génn nii boo ko bësee rek bokk ci chaîne euh, kon vidéo tey bi ñu ngi ci bëgg a waxtaanee naka la ñuy defee benn miniature miniature naka lañ koy defee ci eh, vidéo YouTube miniature nag boo ko déggee lu am solo la mooy loo xam ne li contenu eh, vidéo bi maanaam contenu vidéo bi moom ngi exposé ci kaw euh, photo bi ku xool photo bi dina xam vidéo bi ci lan lay wax bëgguñu la nga def miniature boo xam ne si miniature wu naxaate la miniature naxaate mooy par exemple nga eh, am buy wax ci eh, ci ci comment mettre vidéo en ligne euh, sur euh, sur nga am vidéo boobu ba pare nga def ci benn monstre boo xam ne si monstre bu ngand la bu bu bu rëy a rëy xam ne jéggi na ni ni aw rab di toll ba nga xam ne ñëpp dinañ ko yéem daal nga def ko sa miniature wala nga def euh, maanaam miniature boo xam ne daal. méngoowul ak ku ko cliquer bu duggee ci biir du fekk euh, li li affiché woon ci kaw du ko fekk ci biir loolu naxaate la quoi euh, mat nay moytu donc miniature nga fexe ba miniature booy def mu méngoo ko li nekk sa biir contenu dañuy ñëw directement ci application bi euh, bi koy def mooy YouTube Studio YouTube Studio nag boo ko bëggee am da ngay dugg Play Store boo duggee Play Store boo tapee YouTube studio rek dina génn soo gisee logo bi logo comme genre logo paramètre la waaye day xonq boo ci cliquer dina ubbeeku su ubbeekoo nag ba nga am euh, kii bi ba nga am application bi nii nii nga ñëw ñu dugg man ak yow nga cliquer ci kaw application bi boo ci cliquer li la lay génneel dafa lay génneel bu euh, gis nga application bi nii lay mel léegi su melee nii li ngay njëkk jot mooy benn vidéo am na vidéo booy njëkk a jot nii léegi vidéo boobu noonu dangay ngay ci kawam boo cliquer ci kawam eh, mu mu indil la vidéo bi ci kaw ci kaw fii nii fii léegi bu la fi indilee nga bës lii mel ni ab big lii lii mel ni big moom ngay cliquer boo cliquer ci loolu mel ni ab big bëri na ay fonctionnalité waaye comme miniature rek moo ñu tax a jóg dañoo bëgg a dem directement ci miniature bi soo cliquer lii lay génne su la génnee léeg-léeg nga nga cliquer fii nii fii mooy modifier la miniature nga cliquer ci kawam boo cliquer ci kaw mu génnee la ay exemplaires yu bari ay miniature yu bari nga ñëw fii ci modifier ji nii fii fii nga cliquer ci kaw modifier ji boo cliquer ci kaw modifier ji mu génne la sa ay photo par exemple ba maa ngi ci bëgg a def sama photo léegi ma cliquer ci sama benn kaw photo gis nga mu indi photo bi ci photo bi xam nga format bi moo normal dafa rëy mu indi photo bi ci biir su indee photo bi ci biir ma réglé ba xam ne normal na regle ba mu normal ci man nii gis nga léegi ma ñëw ci sélectionné ji nii ma bës sélectionné ji mu bës sélectionné ji won ma ni ma li nga doon liggéey baax na waaye léegi nag enregistré ko ma bës fële ci kaw enregistrement ba le na le enregistré jële ma bës ci kaw soo bësee ci enregistré mu nekk di ko liggéey mu nekk di ko euh, enregistré waaw gis nga léegi saye léegi li nga doon enregistré Eh, enregistré wu na képp ku rombati vidéo bi ci internet eh, photo bi lay njëkk a gis ci kaw su cliquer photo bi soo a dem loolu mooy miniature te nii nii nii lañ koy defee ñi leen jaajëfal bu baax a baax ci topp bi nga doon topp ba beneen vidéo incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah satu yambar wala satu